boo tourné quand gendarmerie bu Thiès fa lañ lay yóbbu ndax ay bor dana ci fekk da ngeen booy booy da ngeen di dugg ci loo xam ne nekkul seen distance dama rek nga ne foofu di ngarale ay tànk sëñ ngañ la non day baax ku ku jàpp ci day baax wala day baax <laughs> sëriñ nan naan ma ku jàpp ci bilaay day baax raas a gis sa tapa sa gis sa gi baax juboo dara wax naa ko maa ko waxoon na ko sëriñ ngañ da ngay sonn ñii nga topp da ngay indil benn njëriñ mais sëriñ ngañ dafa ñeme di wax ay barke sëriñ baax ma ko xolal ak sama wér di gi ma yor xolal kii moo taxit baax na man damaa ngi ci man man man man yàlla baax na topp moon kenn Serigne Ngagne fu mu tardé caay <laughs> non copain mi ngi nii nii la koy defee xoolal copain <laughs> en tant que irge yi xoolal dafay baax man rek maa jéngu ci comédien yi ànd ak sa waay taas sa gi sa baq gi sa gi dafa génnoon benn taas maki Sall Macky sa gi sa gi di gin gin gin caa tapati émergence baax na si Serigne Ngagne duñ ko def baax na ci moom léegi nag eh, est ce que nga xam ne Cicelo PDS la nekkoon Cicelo copain Ablaye Wade benn tey tey lépp leer kañ la jërëjëf jërëjëf na ngeen def sawaadiya ku dëgër fit Cissé Lo moo dëgër fit Cissé loo ma ca ndaam wax dëgg yàlla sa bàkk riis na Cissé wax dëgg yàlla ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay Cissé di fay ñi nga xam ne ñooy xale yi ma fi fekk di leen nuyu nangeen ngeen def ana seen yaay ana seen baay Cissé tey nag ñu am invité bu mag boo xamante ni nii wax naa ko léegi léegi di Cissé Lo moo dëgër fit Cissé nan nga gisee 45 ans yi nga xamante ni nii moom la PDS di fête nga xamante ni nii yow sa wàllu bopp jaaroon nga ca. Ablaye Wade lu ma la wax ci moom bind ko téere. nga ni Macky sàll bi ñu nekkee ci parti Ablaye Wade est xam nga ne tey ci yoon man kenn waruma woon sax di ma yóbbu ay assemblée nationale. ndax benn am naa xam-xam bi jàng naa mën naa am naa fit am naa xam-xam am naa relation dama suur ba pare soog des def politique. man normalement premier ministre laa waroon nekk. parce que bi ñu demee ba xatal ñu ci parti bi. man maa njëkk ne ki gëmal sa bopp nañu dem mu ne ah ma ne ko dañuy dem parce que kii dañuy tardel yàq nañu ci góor gi ba pare kee ma gis muy wax mënutoo am confiance ci moom maag moom ñu toog am na yoo xam ne sax ñëwuma ko wax mag Macky Sall dañu waxtaan ba toog fenn ci benn ban keroog ay femmes ñu ngi woon ci kaw dañoo sotti ndox pour ñu dem ndax wax joo xam ne dañ ko doon wax du ma dem da ngay dem ma ne ko da ngay dem Ablaye wadd ni ma ko xamee noonu laa xamee Macky Sall jërëjëf wax dëgg yàlla nga bëgg nu waxal nu tuuti ci ay qualité yi nga xamante ne nii moom la maître lay Wade lambe woon. bu caaxaan jeexee nag nit ku baax la. dëgg la parce que duma dem ba àndatuñu ma koy waxal lu bon. Mhm. lay Wade benn erreur rek laa mën a wax ne moom moo am ci moom te loolu mu ci ñëpp nag. Mhm. mu ngi ci man day nelaw yeewagul mun yàlla bu mu yeew mooy maanaam nit wax la dara nga dégg ko sa nopp rek jàpp loolu mhm. mais bu demee ba gis li nga ko waxoon ci kooku gisu ko day ñëwaat am fu la fayda la kaay ñaareel bi nit la koo xam ne man boo mu musaan bëgg ab Ablaye Wade wàcc xam naa fi may jaar ak moom parce que jox ko gëddëm wax ko li nga xam ne moo nekk ci moom ba pare nit ko oyof la waaye am la waaye am na yàqkat yoo xam ne du ñu yet ci yàq da leen di jaral dem ci àll bi dëdal leen Ablaye Wade Macky Sall seen diggante du ay wax rek yow dara wóorul ci li ngay wax kii di wax foofu li may wax lu la ci wóor da nga ko fekkee dëgg la eggali sa waxtaan Cissé Lo wax dëgg yàlla li ñu wax sa dëgër fit gi maa ngi koy bëgg a mais Cissé gis nañu wax nga léegi léegi ci ay qualité ci maître Ablaye Wade wax nga ci léegi léegi ay qualité mais li nga dund diggante ba ngeen commencé ba ba nga fa jugee loolu nga fa dund loolu bëggoon xam lan la xanaa li ma fa dund mooy dem ba ci biir gis ne fulla ak fayda bi ma am moom laa wax Macky nañu dem parce que lu jeex jeex na dëgg la Ablaye Wade baax la ku taxaw ne nit du nit ku baax ëllëg yàlla na yéex nit ku nekk da ngay seedal sa morom gis nga yàlla ci alxuraan da koy wax boo jàngee xaaju suufu alxuraan ba ci biir am na saar bi du ma ci bëgg sori doomu jullit dafay seddal jullit lu rafet même boo ko xamulee boo ko mënul seedal teel sa làmmiñ man Ablaye Wade du ko wax waxal dara lu ñaaw parce que conviction politique ànduñu ànduñu dañuy dem waaye bu dee ci jikko gisuma ku ko gën Ablaye Wade yor milliard jox la ko top dem lebi boro ko gën. combien de milliards Ablaye Wade a fabriqué des milliardaires dans ce pays ñu mu jox ay marché ñu mu dimbali ak ay tojamaan yoo xam ne toja nañu fii ba pare mu baal leen Ablaye Wade c'est quelqu'un boo xam ne bu ñu ko doon.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 PDS yow PDS moom Ablaye Wade la rek laa koy ñaanal yàlla may ko fan bu gudd ak wér gu yaram ndax ñun ñëpp moo ñu uuf te moo ñu defal promotion. Mhm. jërëjëf Cissé Lo moom moom nekkoon sunu gan tey wax ci ay qualité yoo xamante nii ci maître Abdoulaye Wade ñun sax xamuñu ko woon waaye lii la ànd jël nit doo fàtte démb nit nit doo fàtte démb nit booy ànd ak moom da ngay ànd ak moom ci ngor ànd ak moom ci jom ànd ak moom it ci teey wax dëgg yàlla wax na léegi léegi seen tàqalikoo ñoom ñaar wax dëgg yàlla xam na ni dem na ba ñu ñoom ñaar mënatu noo ànd mais Cissé te nan ngay féetee joyeux anniversaire mais xanaa kon gars yi ni ñu koy fekkee rek ndakaaru Ndiaye Jal Diop Sangomare nañu préparé xam na Cissé Lo bés bu nekkee maire de Dakar lépp daa dee neex. man am na fit te dama koy wane. la ilaha illa ma won leen nag ñoom seen génération dama ci dugg ba jeex tàkk te duma arrière. Régis bu fekkee am ngeen lu yemb fa may. ah eh. eh si si ah eh si si li faru ci yow. nga ne laa li faru ci yow. yi ana loxo yi ana loxo yi nii la foo nii la foo nii Wayne.